asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale El Mouritaria jërëjëf yéen ñu nu taamu euh, di topp seen émission xeltu gaaw bu jot su fukki waxtu ak benn jote euh, tey jii ñu dalal seen euh, dalal fii seen émission xeltu beneen kàngam ci biir réew mi war a nag li nga xam ni moom mooy taxawaayu société civile euh, ci li nga xam ni euh, moom mooy euh, doxalinu réew mi gannaaw loolu tamit ko ñu fàttalir tamit que am nañu kii lu bëri loo xam ni mën nañ ko waxtaanee moo xam lu jëm ci wàllu dëgg jëm ci wàllu njàng mi jëm ci wàllu taxawaayu li nga xam ni mooy société civile ci li nga xam ni mooy jàngu jigéen ñi jàngu ndaw ñi waaye tamit waxtaanee ci li nga xam ni moom moo jëm. ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñoo ngi koy lépp daan ci mën a toog waxtaane ko moo waral tax tey ñu ñoo ànd ak yéen ci seen émission war a waxtaan wu yaatu yaatu ak sunu invité ji di ki nga xam ni moom mooy Oumou euh, Khairy euh, Diakhaté moom la ñu invité ji ci sunu euh, émission xeltu soxna si mbégte ak kontaante de la laatu la fi bàyyi la nga nu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu soog am di soobu ci waxtaan bi. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim وصلى الله على سيدنا محمد ومولانا وسلم تسليما Babacar maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu téléspectateur yi ñu seetaan di am kontante ak bégte toog ak yow tey encore fii ci plateau bi pour ñu waxtaane lu bari ci li nga xamante ne bi mooy mbiru jamono beeg li fi nekk ci biir réew mi te lëmbe ko muy mbiru éducation lu jëm ci xale yi lu jëm ci la société civile ak seen engagement ak seen taxawaay kon maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. voilà euh, soxna si ñoo ngi war a waxtaane tey jii euh, yow ma fàttali ni tey jii euh, mm. yaay présidente association pour la promotion de la femme et de l'enfant mm. maanaam ñu koy wax. Euh, APFE euh, nga jiite ko euh, di ci liggéey liggéey bu mucc ayib mhm. di tàggat ndaw ñi di tàggat jigéen ñi di ci def liggéey bu am solo mhm. alors dama bëggoon ñu dellu soit tuuti ci mbootaay boobu nga xam ne yaa ngi koy yaa di mhm. présidente ONG boobu taxawaay bi taxawaay bi nan la nan nga ko nan la la mbir mi duggee. ak ban inspiration nga am ak lan moo la motiver. ba nga xëy suba rek ni dama war a taxawal benn ONG ngir si jàppale jigéen ñi waaye rawatina tout tànk yi. jërëjëf Babacar defe naa ni mosoon naa fi toog sama première émission ak yow ñu waxtaanoon ci ni nga xamante ne moom laa duggee woon si association bi mu doon loo xamante ne bi lu nekkoon ci sama xol la ci sama deret la nekk di romb di gis ay xale yoo xamante ne ndeysaan ñu war leen a mën a yar éduquer leen. jaara leen ci yoonu arxuraan wala ci yoonu éducation beneen budul ay école ak yooyu yëpp mais seen waa kër yi ndeysaan xëñ na coona ak métit bu metti moo leen dal ba nga xamante ne xale yi seen bàyyi bàyyi leen ak ñoom xamuñu nu ñuy def bu ñu xëyee daw di wuti bàyyi xale yi ci mbedd yi mbedd boobu ma gis xale yi moo ma gën a encouragé ñu dema dema dem ba yóbbu ma ci police ma sonn naa la ko nettali mm-hmm. yëf yi gën ma encouragé waate ma xam ne lu metti lu nekk rek dana ma sa neexi benn bés mooy li ma ci dal ndax bi may fat xale yàlla xam ne ko ak yonante bi aw ma ONG amuñu coopérative amuñu dara waaye comme xale yi dama leen daan romb ci mbedd yi ñuy for ay carton ay euh, dàll yu dagg ak ay butéel di ko jaaywaat aribis te boobu aribis dafa jegeñ mm-hmm. ma xool secteur heures du matin naka nga mën a juree doom ëmb ko juróom-ñeenti weer teg ko ci àddina mu tool ni mu tool nga koy bàyyi ci mbedd kon dara la may jël xale yooyu di leen dajale sama kër ba beneen saay-saay dugg ci ndeysaan ndax ni mu gisee may dajale xale yi mu yóbbu ma ci police bëggoon ma ci sosal dugal ma ci dugg bu metti alhamdulilah rabbil alamin yàlla bi nga xamante ne dara tëw ko mu génnee ma ci mhm. waaye lii yëpp lan la ndax sama yaay ji yal na ko yàlla yërëm nitu social la woon suñu kër Babacar boo fa daan dugg da ngay foog ne ngéntee fa am wala xew ndax doomu jàmbur yi fay dajaloo ndax dëkkandoo yi nga xamante ne fa la ñuy dugg fa la ñuy toog fa la ñuy waxtaanee fa la ñuy lekkee fa la ñuy naanee lii daal moo ma gën a gën a gën a poussé ma ne xaaral ma jàpp ci lii conseil bi ma xamante ne bi mooy commissaire bi loolu na ma conseillé pour ne naa wuti ji ONG ma ñëw waxtaan ak yeneen i naataangoom nag ñu sawaroon ci torop ndeysaan ñu daal di koy mujj formé bi ñu formé nag loo am débu day metti te ñenn ñi ñemeñu ñu coono ndax ku nekk booy dugg ci dara ngëm-ngëm ak fas-fas moo ci ciy dugal mais ñenn ñi loolu du leen ci dugal. mais yow dañ ci duggoon euh, ak sa volonté bopp kese. wala am naa ñeneen ñu ma si àndal parce que man bi ma commissaire bi conseillé ne ma tey xale bu deewee ci sa kër mën nga dugg. Mhm. mën nañ la yóbbu police te bu ñu la yóbboo police tribunal ngay féete boo demee tribunal prison ba ngay dem ndax xale bi dafa dee ci sa kër te ni mu fa deewee du deeween bu normal bu fekkee ne rayuloo ko defoo ko dara ndax yàlla day ñëw rek waaye dajale bi nga leen fa dajale du woon yoon ndax amuloo benn këyit boo xamante ne mooy mandargaal que ne xale yi war nga leen mën a tey. nga leen da nga leen doon Euh, maanaam kaddu ak nangu waajur wala bi may njëkk a du wan nangu ak waajur gisoon leen ci mbedd bi rek comme ni ma la waxee ñu dajale ay butéel ak ay dàll yu dagg di ko jaaye ji arabis bi ma leen laajee luñ koy doyee ñu ne dañ koy jëndee ndékkee lu ñuy lekk seeni waa kër ñu ne ñu ngi ci biir Basra bi lañ dëkk mais au fond fond la ñu dëkk ma ne leen léegi bu ma leen yóbboo kër ga defal leen ndékkee ngeen lekk añ ba suur naan ngeen xaar ma ma wàcc ma yóbbu leen seen kër ñenn ñi d'accord ñaar ñi daw ñooñu ma yóbbu kër ga ndeysaan sam benn benn sœur a foon ma ne ko nal sang xale yi bañ set changer leen yére yi jox leen yére xale yi ñu sol ñu defar leen daal xale yi bi may wàccee yàlla xam na ne Babacar dama leen fekk ñuy nalaw ma bàyyi leen ba ñu yeewu ndeysaan may leen gute ba pare ne leen nañ leen ma yóbbu la ku ma ñëw ba ci sa biir kay ñenn ñi ci mbaar la ñu dëkk ndeysaan bi ma ñëwee fekkuma kenn ab xale bu jigéen bu ndaw laa fay fekk ma njëkk a dugg ci këram an sa yaay mu ne an sa papa nekku fi ma ne ko la dëkk mu ne ma waa ma ne ko toog ba ma wàññeeku ma yóbbu ñi si des ki ma gën a metti ci àddina nag mooy góor mu ma fekk mu tëdd jigéen jaa ngay dem di wuti ci mu ne ma kii loo koy doye xale mbedd la taluñu dara dang leen mën a yor kii buñ leen mënoon a yor duñu génn kër gi teg ci kàddu bu ñaaw góor gi ku góor ki ci boppam moo ko wax mu leer ma ne leeral yàlla nay xam naa ne dafa sentir amul woon kàttanu dem liggéey moom am na kàttan yow koo xam ne yaa ngi am kàttan tëdd nee nga da ngay dem yen saa yi nga manœuvre nga am yenn saa yi doo am waaye même bu dee yenn saa doo am demal nga xëy rek ndax saa yoo xëyee yàlla mën na la may sa wërsëg nga ñëw indi ko jox ko say njaboot waaye li gën a metti si jamono bi mooy da ngay gis góor ñoo xamante ne dañuy bàyyi jigéen ñi takk seen digg seen gannaaw bëgga leen dawal dépense te du dëgg du yoon. et et ce qui est grave dans tout ça euh, euh, soxna Oumou Khayri euh, moom mooy tey ji fi nu toll fii nii. Euh, xëy na loolu nga wax ni euh, ci en quelle année yàgg na. yàgg na c'était depuis 2005. 2005 euh, mille cinq ak léegi c'est 19 ans. mais tey soo xoolee ni tey jii mbir mi ngay doon xeex noonu ci njëlbeen yaakaar ni xëy na développement dana am. Mm-hmm. xëy na tamit que yokkati dana am mais mbir moomu ngay nettali nii ci góor goo nga xam dafa toog ci mbaar ma tëdd. Mm-hmm. bàyyi jabaram dem wuti lu mu indil njaboot ji. Mm-hmm. tey jii soo xoolee tey jii. loolu dafa multiplier dafa multiplier tey ji góor yi ñàkk yi jom ñàkk yi ñàkk yi fayda amul benn benn personnalité seen bopp tey ji toog ñu dem di leen indil leen jox moo ëpp tey ji euh, ci jamono yooyu nga doon wax yow ka sax du dem toog sax ñu di leen indil waaye am na si ñoo xam ne dañuy liggéey def ko ci seen poche ñëw tëdd jàpp seen jàmb jigéen jaay daw ko dikk mooy daw di ñëw di indi dépense di la toggal di la lekkal di toppatoo xale yi di leen fayal école di yóbbu ay doomam ñuy jàngee ko wàcc yow nga ne faax daal di tëdd wala boo xëyee dem liggéey la nga am akas yaa ngi daje keneen daal ne ko ko yëpp daal di bàyyi say doom. mais ni loolu bien vrai que ni mi ngi ci mi ngi ci code euh, mi ngi ci même code de la famille. Mm-hmm. est-ce que yaakaaroon ni loolu euh, xëy na loo xam ni dañu ko ci bind te kenn appliqué wu ko te tey jii nguur gi war nu jël ay matukaay ci loolu. parce que da ngay gis tey jii même dans les situations euh, polémiques yi am ci diggante ay sëy. Mm-hmm. tey soo demee ci xaat yi bari na problème yu fay posé wu. Euh, lu koy indi ci genre yu mel noonu la est que yaakaaroon ni tey ji nguur gi waroon jël seen ay matukaay jël seen responsabilité pour mën dakkal li ni mel góor dafa war a jël ay responsabilité boppam Babacar bi ko nguur gi waree jël dafa yàgg ba nga demee ba nga tëgg liñ naan code de la famille te lépp ngi ci biir article sur article te loo xool ci kaw suuf si nii ci kaw jamono bi rek ñu ngi ko tëbb ci biir euh, code de la famille boobu mhm. mais non application xam nga ñun suñu la mooy dañu mën a ay hmm. convention di ratifier mais loi yi même bu dee dañ ko vote sax ci suufu tiroir yi duñ ko appliquer jamais hmm. non application boobu nag moo ñu sonal ñun mooy li nga xamante ne moo sonal jigéen ñi moo sonal société bi ndax tey fa ñu war a mën a jaar ba am fa gain de cause bu ñu fa demee dañuy sonn wàññeeku waat ñëw toog du donc état dafa waroon jël responsabilité ana jigéen ba jigéen doo soso ba fi ñu toll nii ba ci taawu yonante bi alayhi salaatu wassalaam bu dee kooku mooy royukaay bi nga xamante ne moo gën a màgg ci atina mm-hmm. yàlla tànn ko ci mbindeef yam ne mooy gën di mbindeef moom la yàlla mayoon ay jabar mu yemale leen ne woon soxlawul dërëmu kenn mm-hmm. Xadija ci ëppoon alal te nee na ko woon soxlawu ma sa dërëm gisul dërëmam gisul ñaar dërëmam mm-hmm. te terewul dem na bay sàmmi ndax lan ngoram ak fulam ak faydaam ndax mu mën a yor ay jabaram yor ña léegi de góor ñi moom duñuy wax ni euh, benn benn man dama ci def ma def dama ci taay xam nga def ma def ci sama consentement lay doon man bu ma nangoo en tant que jigéen may liggéey ne damay dimbale sama jëkkër amul benn problème san ne veut pas dire force la te daf ma neex ak naqari la déedéet daf may neex man mii jigéen ma xool ne peut-être engagement bi nga yenu dafa metti ma mën la cee dimbali ci kaw mu neex mi sama consentement bopp mhm. bu ma xoolee ne tamit jaralu ma ko jaralu ma ko mais yow du tee nga gàddu say responsabilité ndax jigéen ku ko takk ku nekk war nga ko dëkkal dëkkoo ko dëkkal ka lekkal ka naanal ko mhm. waaye yow léegi boo takkee jigéen daal yow jeex na c'est pour la forme rek am naa jabar bu la neexee xëy dem wuti ji bu la neexee daal ne tey damaa sonn du ma wuti bu ñu waxee nga ne ko débrouille-toi dépense ba matul dara matul te marché beeg li fi nekk léegi ci jamono bii ñu toll nii tey boo yóbbu woon ñetti junni ci marché bi doo ci mën a togg kilo ceeb Mm-hmm. lii yëpp di dox te jigéen bëgg ko gàddu ci kaw boppam ci kaw responsabilité am nañ leen xoolaat code de la famille bi madame la présidente mais dans tout ce dans tout ce dans tout ce euh, mm-hmm. jii lan mooy seen taxawaay yéen société civile bi parce que vous avez un rôle très important à jouer yéen waa société civile bi mais lan mooy seen role est-ce que sensibilisation bi ngeen xam ne war ngeen ko def wala yéen war ngeen ko war ngeen ko taxawu yéen def yéen a ngi koy taxawu parce que dafa mel na yéen tamit ci seen euh, maanaam taxawaay ak seen wàllu rôle da ngeen da da ngeen aussi tamit ka faillir à cette à votre mission. si côté boobu ñeen nañu la rek parce que am na si ñoo xamante ne bii xëy na xamuñu lan mooy moo société civile mënuñu ko définir am si ñoo xamante ne ONG avec grand ONG xamuñu lan lay définir. ba tax na ku ci nekk léegi boo xëyee rek yaa ngi yaa ay cartable kese la yenu sa ne man damaa am ONG rek pour la forme yow gisuñu la nga former gisuñu la nga sensibiliser gisuñu la nga waxtaan sax ak famille boo xamante ne dafa am différence sax nga jéem a lëkkaloo ak ñoom waxtaan ak ñoom pour mën a régler boobu problème kon société civile dafa am ñaar ba ñett am ñoo xamante ne si politique bi la ñu féete loolu mooy seen fort si la ñuy récolter lu ñu bëgg a récolter mhm. suñu genre yi nga xamante ne dañu apolitique lii dañ ko jël mu doon loo xamante ne mu sax si ñoom muy doon mission boo xamante ne dañ koy yenu ñu war ci mën a développer participer ci développement dëkk bi ñi ngi fi di def seen waar waay kenn duñu leen a gis ñeneen a ngi ci suuf yoo xamante ne man dama koy yenu rek fu ma yaakaar ne daal bu ma fa duggee am si tuuti dugal ko sama saak bi fa laa koy teg. mais est-ce que est-ce que yaakaaru ñu tey jii nguur gi war nañu réglementer aussi tamit ko ONG c'est des milliers et des milliers d'ONG yu ñuy organiser fii amul koy toxaw wax ka te waxul na am na ONG te kii wuti ONG boobu kii yéen koy defal dan dafay toog ci biir salon toog ci biir këram ñu defal kaay ONG indil ko ay papier lu ma ciy wut lik mooy li nga wax léegi voyager jël billet d'avion dem dellu si am si ay connaissance financement ñëw nga am ci Babacar tey la gën a metti ba ñu demee ba ne dañu am fedam fedam mooy lan mooy euh, euh, nga enregistrement électronique bi ñu def léegi si euh, kii ONG yi mhm. boo bëggee former léegi ONG da ngay wut sa juróomi nit rek te boobu njëkk bi ñu commencé def seen sensibilisation enquête de moralité amul benn enquête de moralité da ngay dem dem notaire ñu defal la sa statut règlement intérieur nga wut sa juróomi nit ku nekk sa kayitu juddu sa extrait de naissance ak sa casier judiciaire ñaari photo photocopie d'identité nga ñëw tak tak tak ibbi surtout fedam dugal sa ay dossier ñu valider la bu gannaaw subaa nga ñu jox la récépissé nga dem gënuñu metti gën na metti et dans et dans cas des fois da ngay gis koo xam ni euh, euh, xaritam wala nijaayam wala tantam wala kenn koo xam ni ko am doole la nekk ci yenn béréb yi nga xam ni financement yi di liggéey da ngay def sa ONG si falaa jëm si même nguur gi ci boppam sax ña nekk ci biir nga xamante ne ñooy ministère mooy li a mën a lëkkaloog nit ñi sax mm. jéem leen a dimbali ñooñ dañoo am seeni i ONG famille ya ñuy am ONG ñoo leen di demal ñooy seen tànk ñooy dem mu mel ni loo xamante ne bi favoritisme dafay dugg mm-hmm. gré à gré day ñëw te lii yëpp war nañ kaa mën a saytu ci biir réew mi ma neew ma ne ki fi nekk jéemul dara mënul dara waxuma ko te li muy jéem a kas néew waaye ña ko wër ñoom ñoo waroon a xool seen defelin xool seen toogaay te ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk li nit di yëngu nga xool ka nga xamante ne moo ko gën a yelloo nga jox ko ko wàññiwul dara mm-hmm. boo ko dimbalee du ñàkk mu gën a élargir ndax ñun ñu ngi sensibiliser ñun ñu ngi former ñun ñu ngi éduquer ñun ñu ngi insérer te lii yëpp nguur gi taxawul ñu dara ci suñu kanam Et, euh, euh, dara dara dara. alors tey jii euh, euh avec la l'arrivée du du du nouveau, euh, nouveau premier ministre Ndiaye dans son discours euh, euh, dans sa déclaration euh, de politique générale wax na ko ci que ni am na taxawaay boo xam ni nguur gi war na ko taxaw ak la société civile ci déclaration boobu nga xam ni wax nañ ko te ñu bëri tamit jàpp ni aussi tamit nit la koo xam ni ku am ku am ku am dëgër laay la ko am pas-pas la est-ce que am nga yaakaar dëgg-dëgg ci loolu. man de yaakaar gu ma ko wax dëgg yàlla. tax ma kay du ko yaakaar nag ñaar nii ba ñett. Mhm. ndax ki fi nekk léegi nekkoon na ci temps Aziz. Mhm. te comme Mouhamed Abdel Aziz mosoon na ko fal dama yaakaaroon ne foofu la waroon na njëkke ba pare bu fa njëkke woon développé lañ ko joxoon bu jaarale woon ko ci yoon kon tey bu ñëwee ba mu doon premier ministre. mais pourtant pourtant wax nañu ni euh, moom fi mu jaarale au niveau des finances am na ay ay ay mbir yoo xam ni bàyyi na ko fa. am nay rëq-rëq fa nekk teg si voilà loolu mënu ci ñàkk yooyu moom am nay rëq-rëq ndax loo gis bu amee tuuti lu baax dina am lu bëre lu bon lu fa nekk mais est-ce que tey yaakaaroon ni tey ji avec cette responsabilité bi ñu ko jox nga xam ne tey moo ëmb lépp téye lépp euh, moo war dana dana dana am lu mu ci bouger surtout société civile bi nga xam ne tamit mooy la base de parce que ñu bëri ñuy defoon ni li ma ñaan la politique affaire yooyu fekk na société civile li ma koy ñaan mooy nañu jël société civile bàyyi ko mu indépendante man lii laay ñaan état bu bàyyi woon société civile indépendante les défenseur des droits humains ñu xam ne ñun ñi ay droits de l'homme vrai lañ mm-hmm. ñu nekk secteur développement ñu xam ne ñun ñi secteur développement la ñu def dañ ko war a mën a développer mm-hmm. ñu nekk secteur élevage nekk ci seen secteur élevage ñu nekk agricule agriculture nekk seen agriculture mën ko développer ñoom ñu tegg ci seen kanam ak seen gannaaw yàlla xam na ne kon dina dem ndax dinañ ci tasanteen ñoo xamante ne ñu ambitieux <coughs> ñoo xamante ne bii war nañ ko mën a développer yëkkati ko jëmale ko ci kanam ñun mënuñu nekk depuis dans les cinquantaines ba tey ñu jëloon suñu indépendance te suñu agriculture ñoo ci gën a dellu gannaaw ci Afrique suñu élevage ñoo ci gën a dellu gannaaw ci Afrique développement réew mi ñoo ci gën a dellu gannaaw ci Afrique te yàlla xam na ne li ñu am ci ay ressources su région bi amuñu ko pourquoi ñu gën ñu mën a développer li tax seen société civile gën a mën a taxaw suñu société civile parce que du ñàkk ñoom seen gestion seen bopp dañ leen bàyyi ak seen indépendance bopp jox leen li nga xamante ne mooy seen cër ak seen yelleef ba ñu mën a téye seen destin en main ñu mën ko doxal ndax xam nga réew boo xamante ne société civile bu forte amu fa toujours ci nii rek lay deme ku wax tey pëccaxoo rek parce que yow boo waree mën a wax sax taxaw nga mën a kaas ay droit parce que ñun duñu duñu duñu Euh, ennemi l'État ñun dañuy compléter état ñun ñoo nekk diggante état ak citoyen yi mhm. dina am foo xamante ne yàlla xam na ne bëttu état yeggu fa mais ñun ñu ñoo ko ko war a won wax ka ñii li ñuy dund lan la li ñuy souffrir lan la Babacar li metti ci dëkk bi yëpp dafa bari waaye ñun ñii en tant que société civile ñun ñoo ko def. mais est-ce que ñun ñoo lëkkaloo. voilà est-ce que foofu laa bëggoon jëm est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tey jii pour mën a entre l'État et la population yéen ci seen wàllu bopp joue ngeen seen rôle bi ngeen war a joué. est-ce que mbootaay boobu am na est-ce que regroupement boobu am na est-ce que solidarité boobu am na. parce que aussi tamit comme ko waxee tey jii. société civile dëgg la am solo ci réew. Mhm. mais su fekkee société civile boobu matu ko aussi tamit toujours lii lay indi. am na ñu ko mat du ma ne kenn matu ko si wallaay am na ñu ko mat te am na ñu koy kaas dëgg am na ñu ciy dox seen waar ba mu mat sëkk dëgg. waaye li ma la wax rek diviser pour régner ñun état daf ñoo diviser dafa jël ñenn ñi favoriser leen ci politique beeg yaa ngi ci lu nekk li leen neex rek ngay def li leen neex ngay wax lu ñu def ci lu jëm ci citoyen bi lu dul yoon yow mënuloo ko kaas mënoo ko wax. mais est am ngeen mbootaay suñu am nañ mbootaay ba. ay mbootaay yu dul jeex a ngi fi mais seulement que mbootaay serein boobu nga xamante ne sérieux na lëkkaloo nañu sérieusement am seen engagement am seen éthique dem ak moom. am liberté boo xamante ne bii ñoom seen bopp du ñu faale ki nga xamante ne moo leen di may suba dërëm wala ñaar dërëm li li ñu gis rek mooy lii dañ ko war a mën a développer dañ ko war a mën a xeex a jot suñu àq ak suñu yelleef ba ñu ñuy xeexal ñoom tamit ñu mën ci gis seen bopp. yow Babacar boo xoolee société civile tey bu ñu yokkee benn mburu doo gis benn société civile ci mbedd bi. Hmm. xam nga lu tax ndax bu ñu génnee rek ne ña ngay jéem a ñaxtu pourtant seen la de dañ leen di yónnee ay homme ñooñu aussi au lieu ñu encadrer leen ñu ñaxtu li ñuy ñaxtu ku nekk tasaaroo nga dem sa fa léegi président bi wala gouvernement bi ñu jël si ñoom seeni notes yi ñu soxla li ñu soxla war kaa mën a defal nit ñi déedéet léegi dañ leen di yónnee répression ay homme de loi ñu ñëw seeni gaz lacrymogène xam nga léegi ku mel ni man bu ma ne ah du ma dem de ndax man ma dem. Ah, lacrymogène moom la nga cee wax mooy jaru ko. jaru ko parce que soo xoolee tey soo xoolee ji situation bi nga xam ni moom la ñuy dund tey ji euh, ci ci coupure électricité bi tey ji ndox bi euh, nag kupp euh, xamaj kupp xamaj kupp xamaj nga jëm jëm ci ndox mi ñi ñi ñi dañuy rabitaay bëccëg bi ñi guddi gi ñii des fois sax duñ ndox euh, mooy source de la vie te loolu te loolu dama siy gisul benn yoon yéen seen dama siy gisul benn yoon yéen seen taxawaay en tant que société seen euh, civile euh, seen taxawaay ci ci ci ci wàllu woowu xam nga suñu taxawaay sax moo doon ñu ñu génn en masse wane na lii kii bi def état bi def du dëgg du yoon ndox mi nañ ñu ko rétablir une bonne fois pour tout mënuloo doo am ndox guddi doo am ndox bëccëg coupure di la bëgg a rey bu subaa bu ñu la indilee facture nga ne lii dama ko mos a lakk mu double la nga daan lakk ci ndox metti na ba ci kanamu yàlla nga ne courant bi bu guddee nga toog ba xaaju guddi ñu ne cap courant lëndëm googu mënatoo ci génn lu mën a yëngu ci ak insécurité bi am ñu bëgg laa lor si coupure courant xam loo looy def société civile fan yële bi mu fi génnee ak seeni i bidon luñ leen def dañ leen répressionné génne leen dàq leen jëli ay lacrymogène sànni leen lii laa ne état na koy moytu na bàyyi nit ñi pour que ñoom ñu mën a xam naka la ñuy saafaralee li nga xamante waaye yéen ñi nga xam ne dañu war a njaxtu te ñoom ñu am nañ si droit de yàlla xam naka ak yéen suñu constitution moo ñu ko mu ñu demee dem suñu démarche ñëwoon ngeen encadré ñu duñu am benn bàyyi leen ñu wax suñuy doléance bu jëree ñu bind tegal leen ñu wax ñu fu ñu koy teg ñu tegal leen ko waaye def nañ suñu marche ñu fu jël suñuy photo dem suñu yoon boo legee ngeen xool naka ngeen koy régler à votre manière bu fekkee ne yéen li ngeen am si ndox mënu leen ko ravitailler toute la Mauritanie ngeen wax ne ah tel jour wala de tel heure a telle heure ndox dañ koy dag et surtout wala de telle loolu la communication. maanaam communication bi du amul benn communication communiqué. communiqué wu ñu si rajo. Mhm. communiqué wu ñu si télé. Mhm. communiqué wu ñu ci benn site nii si benn groupe te du dëgg du yoon. ñun ay doom aadama lañ ay être humain lañ te ñu war a am information nous devons avoir de de l' information totale. fu ñu lu ñu war a mën a def lu nekk war nañu mën a informer ñun ñu jël suñu ay précaution waaye doo xëy benn jour rek ñu ne kàpp sa ndox xamuloo nooy de bu fekkoon ne rootuloo si guddi gi wala amoo heure bi mu amoon yaa ngi dalal xel daal di toog say doom nu ñuy def te douche boo war a dugg defoo ci ndox Boubacar doo fa duggu bay nooyi sa doom boo ko warul jox mu war a naan te mënul naan mën na faa tëdd ne las mm. hôpital bu ñu amul ndox bu ñuy fajoo wala bu ñuy naan wala di ci raxas dara doo fa mën a dugg ndox daal mooy source de la na nañu dimbali lillahi wa rasuli ndox mi nga xamante ne kuy kap kuy kap nañu ci dimbali ñu rétablir que une bonne fois foofu laa jëmoon est-ce que yéen ci seen wàllu bopp yéen ci seen wàllu bopp yéen euh, dox ngeen ci doxin boo xam ni pour mën a xam euh, euh, parce que yéen seen rôle tamit loolu seen rôle mooy aller vers l'information ni ko journaliste bi defee pour mën aussi tamit di ko tasaare ci askan wi est-ce que yéen ci seen wàllu bopp dox ngeen li ni mel pour mën a xam problème bi lan la coupure ndox mi coupure courant bi lan la Babacar xam nga lu gën a metti bi suñu jamono ci gën a lii la même yéen information fiable yi ngeen war a mën a am du ngeen ko am si état jamais de la vie yéen yéenay dugal seen bopp gi seeni information jël ko mm-hmm. ñun aussi tel tel est le cas mm-hmm. que déjà bu ñu demee di bëgg ay information doogi gis sax koy taseel ku lay jox information boo xëyee ma muhim ndox dafa war a couper muhim na ba parce que ndox ci la ñuy dund muy dund doomu aadama lu dul ndox du dund aadama ni nga bëggee mën a lekkee di naane naan bi moo ci ëppoon solo parce que ndox ci ngay def lépp lekk bi ngay lekk sax ndox a koy lijjanti kon nañ ñu may jàmm way ñu sutura boo xamante ne bu ñu yeggee si fi nga xamante ne fa la ñu mën a ramasser ay information lan moo waral lii ñu jox ñu ay information claire ñu xam nan la ñu jëlee suñu ay précaution bopp man loolu lay ñaan li ci des nañu fas yéene ñu changer doxalin ak demin parce que lu nekk war nañ ko communiquer lu mu mënti doon lu ne nañ ko communiquer bu fekkee ndox mi war nañ communiquer ak nit ñi rajo télévisé ko dugal ko ci site yi. Ah, dugal ko ci lu nekk def communiquer au moins débat sax man ma gis yenn am na foo xamante ne bu fa tolloo da ngeen di jël ay débat télévisé. Mhm. toog ci biir télé bi daal ni ah. nangam ak nangam de lii ak lii ko war a jox ay explication yoo xam ne mën nañ ko téye waaye yéen amul benn explication ñëpp mu ñëpp noppi ba kañ. te amuñu fenn foo xamante ne mën nañ fa jëlee benn benn benn source amul foo dem ñu tëj ko ndax kenn ci ñoom ñemewul sax génnee benn information ñemewuñu xaw ma dañ ko ragal xaw ma lan lay. voilà euh, euh, euh, ci ci ci ci point boobu du ñuy du ñuy du ñuy dugg ci beneen point boo xam ne tamit que am na solo lool mu jëm ci wàllu njàngale mi l' éducation éducation mooy baasu lépp dama koy yàgg di wax xale bi su jàngul. Euh, ma nga ca ay jafe-jafe bi nga ci am mm-hmm. ay ay ay ay problème tey soo xoolee euh, dégradation bi xam ni am na ci euh, jeunesse bi maanaam ci ñàkk jàng moo ko indi xale yoo xam ne amuñu peut-être que comme ni ñu ko waxee sànq seen ay waajur amuñu matukaay wala amuñu doole bu leen di tax des fois nga xale boo xam ne da ngay gis carrefour yi gis ay xale yoo xam ne amee seen butéel def ci ay euh, omo di jël vitre oto yi ñu leen di jox ay juróom fukk ak ay cent ug yàgg euh, pour mën a am lu ñu yóbbu seen kër des fois da nga leen di condamné parce que da wax ni ñii doon war dem jàngi war a jàngi métier mhm. mais des fois da ngay posé wu la question ana seen ay waajur est-ce que ay waajur lañu yoo xam ne am nañu lu ñu xëy suba ndekkee bay dem di toppatoo seen njaboot mhm. tey jii euh, ñu gis ni jàng bi aussi tamit que bare na loo xam ne suuxee na ci mhm. barki Dembo Ndiaye la première dame Euh, yëkkat na ci ay ay ay ay ay kàddu pour gunge jàppale. Euh, euh, xale yu tuut tuut tànk yi pour ñu mën a di dugg école parce que xale bi dafa war a jàng. Mm-hmm. tey jii lii nga xam ne mooy éducation bi nga xam ne mu ngi suuxe. mu mm-hmm. ngi am ay jafe-jafe. lan moom mooy seen rôle yéen en tant que société civile. Babacar laaj nga ma lu ma sawar di wax ndax métti xol laa ci àndal. xam nga li ñu waroon njëkkee mooy lan ñu xoolaat système d'éducation bi lan la ñu xool ñun état Mauritanie lan la soxla ci système éducation bi ñun li ñu am ci ay fautif dafa bëri xoolal éducation bi da ngay fokk sa mbokk toog musul jàng xamal luy jàngale tuuti la mën a liir si arab wala dara nga ñëw xëcc ko recruter recruter ko ci biir benn établissement établissement boobu mu nekk xale bi muy jàngal xale bi sax kay tane mm-hmm. moo koy tane sax mm-hmm. que moom mi nga xam ne ñëw na pour jàngal ka lii yëpp pour la pour favoriser ko rek mooy li ma njëkkoon a wax sànq favoritisme bi la ñuy wàññi nañ ko teggi sunu bëggee sunu bëggee mm. sunu réew dem bu fekkee ne ñun bëgg nañu avancer mel ne yeneen réew yi te benn réew gënuñu man mënuma gëm ne benn réew ci su région bi wa ba ci international war na gën Mauritanie ndax ressources yi ñu am su région bi amuñu ko dama koy baamtuwaat rek. Europe Europe sax xam na que Europe si ñun lay récolter di yóbbu seen dëkk di leen alimenter du dëgg. Mhm. kon ñun tey waroon na nañu dimbale ñi nga xamante ne ñoo gën a féete ca gannaaw ña nekk ca fond fond ba xool éducation boo nee tey jii. la gënoon a metti ñoo gënoon a bon la éducation te tey dafa gën a metti nga bëgg a jël suñu système éducatif nga ne da nga koy arabisé yow te say doom yow mi nga xamante ne am nga looy fayalee sa doom yaa ngi koy yóbbu les écoles françaises wala international am na ñoo xamante ne tey ci réew mi nekkatuñ fi sax ña nga dem lu ji beneen dëkk di jàngal seeni doom ndax ñu mën a jàng anglais jàng français jàng yeneen langue yow ngeen bëgg a jël seen réew ñi nga xam ne amuñu doole yaakaaruñu lu dul ci yéen ngeen war leen mën a dimbale jaru leen ngeen leen di tànnal lan la ñu war a jàng lu ñu war jàng peut-être mën ngeen favoriser arabe parce que déjà nee ngeen arabe yi moom ngeen bëgg a favoriser mais bàyyi leen xale yi ñu jàngal leen li nga xamante ne loolu moo mën a dugg ci seen bopp yi man loolu laay ñaan. et tey te tey li mu gën a métti société civile nag dañu bàyyi seen loxo ñu ngi ciy wax te xoolal barki démb li leen def moo gën a métti ñoo xam ne dañuy ñaxtu te nee naa suñu constitution moo ñu may ñaxtu. lii ngeen di def ànduñu si war nañ ko mën a ñaxtu te naka lañ koy ñaxtoo duñu toog si biir néegi di ko wax parce que du génn duñu dem ci biir euh, siti di ko fa génnee te parce que mënul wax mais bu ñu defee masse ñëw di kaas benn droit war ngeen ñu déglu may leen ñu nopp déglu leen ñu xool fa ñuy waxee ak la tax ñuy wax lan la waaye bu leen ñu jàpp maar di taari daay pamti pamtee ñi ñu ñeen ñu dóor leen bi ñu bëgg a dee te xam ngeen du dëggutu du yoon am na foo xam ne buñ fa tolloo suñu homme de loi yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais nag seen taxawaay moom wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat wala ñu xool ci recrutement yi nañ leen di jàngalee naka la ñuy mën a encadrer doomu aadama yi ba door ak liif du pour ne rek ak ah, euh, doomu euh, aadama nga koy teg dóor sax dafa dóor bay diri du dëgg du yoon si un pays boo xamante ne ñu mm-hmm. un pays islamique de la Mauritanie yow loo doon un pays islamique nga dem di def yoo xamante ne bii neexul fenn teg ka nga xam ne yaakaar ne moo ko waroon a mën a def te mënu kaa def réew mi li fi nekk barki démb ba tey ba ñu commencé ci système arabisation bi ba léegi gars yi di kaas di bañ ni école yi doo dootu ko xoolal sama kii bi nga waxoon léegi sama première dame maa ngi koy de passage di ko ñaan moom tamit na xam ne xale yi du cinq ans rek la ñu war a mën a dimbali ci jardin yi mm-hmm. parce que jardin bu ñu waxee da ngay def deux ans et demi ba yéeg ba six ans donc diggante bi boo nee cinq ans bi fii nga koy mën a yemale te kay arab bi nga koy jàngal te moom rek moo war a mën a dugg ci bopp bi bu fekkee dafa fatt ba mënul dugg ci bopp bi du ci dugg nañu dimbale nit ñi bàyyi maas ba mu nekkee woon ñun éducatrice yi ñu bàyyi ko naka lañ leen di dimbalee ci éducation bi ba suñu doom yi bu ñu génnee du ñu ñee kenn ci ëllëg waaye léegi tey yow boo bëggee jël doomu pauvre yi nga ne yow cinq ngay dimbalee ab jardin jardin bi ngay dimbalee xale yi cinq yooyu bu fekkee ne ñeenti xale yi cinq rek la ñu am ci koñ boobu ñoo nekk ci biir jardin bi ñeneen ñi seen waa kër xëñ na am doole yóbbu nañ leen feneen wala seeni waa kër ne doon benn pauvre boo xamante ne aw ma lu may fayee trois mille wala mille cinq cent bi may fayee jardin aw ko balaa caag man ma dem wuti bàyyi leen ci kër gi ñu toog ki nga waroon a jàngal alxuraan mu waroon ko dimbale def si participation léegi boo amul xaalis boo koy fay dootul jàngate alxuraan lii yëpp war nañ ko saytuwaat ñu xoolaat ka tegaat ko ci yoon redressé waat mbir yi ba nga xamante ne bi dana jaar si yoon man moom laay waxal sax ndax uh-huh. moom mooy premier dame te man moom jigéen la man may jigéen uh-huh. li ma koy ñaan mooy na xoolaat li nga xamante ne bii moo war a jëmale famille ya ca kanam dimbali jigéen ñi nga xam ne dañoo sonn seen doom yaa ngi toog te ñoom ñekk ñooy jok ñooy boot ñooy roggante ñooy teete ñooy raxas ñooy fóot ñooy def lépp ba pare bëgg leen yóbbu ci école yi te école yi bu ñu demee man mii tey bu ma jàngul arab bu sama doom wàccee kan moo koy jàngal arab aw ma benn kenn enseignant bu ma war a mën a jël mu jàngalal ma ko arab sama très bien mais dafa am dama ko a suivre très bien mais dafa am euh, beneen phénomène boo xam ni euh, madame la présidente euh, mi ngi mi ngi am mhm. surtout si at at mi ci wàllu njàngale mi mhm. duñu gis ni benn maanaam masse bu bu bu takku takku takku ren boo xam ni dañ leen gis ni ñu ngi inscrire de l'autre côté maanaam au Sénégal. Mhm. soo demee Ndar d'après les certaines informations yi nga xam ne man jot naa ko euh, pratiquement les Mauritaniens duñu envahir pratiquement les écoles euh, de l'autre côté alors est-ce que yaakaar nga ni euh, pour benn système éducatif bu dëgër da nga war a bàyyi tey ji say doom. Euh, ñu dem di wuti ji feneen foo xam dañ fay jàngee ji est-ce que loolu avantage u réewu Mauritanie la est-ce ak fan la mën a yóbbu Mauritanie ci wàllu njàng si wàllu njàng mi est-ce que njàng mi demul vers foo xam ni soo moytul dana dana suuxi suuxi boo xam ni kenn dootu ko yëkkatiwaat gis nga njàng fii dafa suuxee ba pare mais ñoom ñi nga xamante ne bii am nañu doole am nañu mën a jàngalee seen doom yi dañuy mais attention am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne amuñu doole mais sacrifié nañ seen bopp pour yóbbu seen ay doom ñu jàngi mais pas plus tard rek ñañ sacrifié am na koo xam naa ko ci moom mooy wax ni ma ay doomam na leen waaw ña sacrifié wu du ñàkk ñu am koo xamante ne bii mën na leen dimbali ci beneen côté pour mën a leen jëlal charge sa doom parce que tey boo ma bëggee wax ne man damay jaay marché bi te li may xëy di jaay bu ma xëyee suba jant so la ma fa war a jaay ameewu ma ko ci amin bi nga xamante ne bii mooy bu yomb pour ma mën mën ko jaayaat mën si am dara du mën a tal sama bop bay tal fay sama jàng doom ca ca gé bitim réew fii ñu nekk nii la ñu waroon a defaraat ba mu baax ñu xëccaat ña baroon génn ñëpp toog leen fii ñu daal di toog jël benn table ñu toog ci ñëpp société civile syndicaliste état ñëpp toog ñu xool naka la ñuy lëkkaloo suñu biir mën a redresser waa système éducatif bi ba ñu teg ko ci yoon ba ku nekk gis ci sa bopp man loolu laay wax te mooy mësa doon sama forte loolu laa mësa wax dama contre nga jël sa doom génnee ko fii ne yaa ngi koy wutali feneen fu muy jànge di doole boobu réew développement la nga koy fay foofu boo ko fayee fii mu gën a yaatu la ngay joxe fee boo ko joxee fii mu gën a yaatu ndax fee fan boo fa demee yaa ngi fay jënd lekk ak lépp ak fa ngay dëkk da koy fay kon yow boo toogee fi nga toog sa kër nga toogoon lekk ak naan yaa ngi ko doon daw yaa ngi ko fii dëkk te fi la gën a mën a yombeel ci yow euh, kon uh-huh. dimbale leen ñu ngir yàlla boo tànnee ñeenti école ba juróomi école nga ne ñoom ñooy jàngale français ay langue bàyyi yow sa ecole publique yi nga ne arabe rek la ciy nekk te doomu pauvre doo nga ci nekk parce que kenn fayewul feneen privé kon yen ñoo ñu ngeen ibbi ima ngeen tëj ñëpp ñu boole ci yem ou bien ngeen arabiser lépp comme loolu ngeen soxla ñu boole ci yem. très bien sinon ngeen bàyyi système bu njëkk ba fa nekk quoi. très bien loo a ka. alors am na beneen euh, mbir boo xam ni mi ngi ci euh, gis nañu ni Barki Dembo Ndiaye ministre de l' éducation nationale am na lu mu euh, lancé muy concours boo xam ni dafa jëm ci 800 prestataires ak cinq 500. enseignants yoo xam ni dañ leen di recruter pour que euh, peut-être que yokk jàngalekat yi gis nañu ni euh, ci wàllu euh, côté boobu tamit que am na ay jafe-jafe yu bari yu ci am parce que soo demee si sunu dëkk yi ak sunu dëkk dëkkaan yi da ngay gis ni maanaam du ñuy am jafe-jafe am sax jàngalekat même jàngalekat yi sax pour ñu am ci village yi am ci yenn gox yi ci yenn gox goxaan yi day nekk problème même tey fii ci capitale bi da ngay dugg ci yenn lycées yi dugg ci yenn collèges yi da ngay gis kii ne la amuñu professeur histoire géo depuis quelque temps kii di wax ne amuñu professeur français depuis quelque temps mu nekk un problème boo xam ni problème bu rëy la euh, naam am na ay euh, jéego yoo xam ne ñoom teg nañ ko ni duñ ko bëgg soppi bëgg ko doxalin euh, ban jàngat. man daal jàngat bi ma si am mooy recrutement bi ñu wax nañ leen ko jaarale ci yoon dans la légalité ku nekk sa àq ak sa yelleef bi nga ci am ñu jox la ko te muy dëgg ndax yow man mënuloo bañ a jàng xamuloo dara am ku la ëpp diplôme fuuf jàng ba ne ar mi ngi toog nga war ko mën a favoriser nga jël ne man sama mbokk la sama deret la man toujours damay dugg ci favoritisme la rek gis nga système éducation bi dara dara yàqu ko lu dul favoritisme kii sama mbokk la mi ngi toog deful dara salaire bi ñu nar a jox kenn nañ ko ko jox non seet leen doomu réew mi yëpp seen doom la doomu réew bi yëpp benn la ñëpp yem ci yem ci yàlla subhaana wa taala kon ñu ñëw yow mi nga xamante ne yaay suñu dirigeant yaa ñu yilif ñun ñëpp ñiy liggéey ak yow lëkkaloo ak won leen yoon ba ñu xam ne ñoom tamit suñuy kilifa lañ waaye nañu ko jaarale ci yoon man bu fekkee dama am àq bi jox leen ma àq bi ma dem jàngale ko bu ma demee def lu noonu teg leen ma ci yoon ma génnaat ci ba mu set ngeen wutaat ñeneen waaye bu ngeen nee recrutement ba ñëpp ne rek te yéen li ngeen di recruter recruter ngeen ko ba pare du dëgg du yoon te bu ngeen xoolee dem a dem a dem ba ci biir am na si ay élève yoo xamante ne bu ñu ñëwee boo leen xoolee seen cahier lañ leen bindal mu leer la ne kii amuñu benn formation système éducatif amuñu formation bi du donc nañu jël yëf yi au sérieux nañ ko jël au sérieux téye ko au sérieux ba nga xamante ne bii mën nañu dimbale seen doomu réew yi ba bu ëllëgee bu ñu demee di wuti feneen wala di def concours feneen ñu mën cee gis seen bopp benn doomu réew tey bëggatul dem defi benn concours mënatul sax parce que bu génnee day fekk ñu ko gën a jàng foofu ndax seen système éducatif ñoo gën a baax suñu bos suñu bos bi daal li ma lay leeral ba leer mooy lii ñu takk ne moom la ñu bëgg a recruter pour enseignant seen fay du baax ca ñu ñuy jël jëluñu la l'homme qu'il à la place qu'il jëluñu ki nga xamante ne bii jàng na ba am ay diplôme mu leer na ne kii bu bindee ci tableau du ca biir gis benn fët boo xamante ne bii xale bi mën na ko ci toppandoo ba dem grammaire bu xale bi tooy toog nga di ko ko wax waxi grammaire sax xamul luy grammaire wax xeen noppi kon nag nañ leen saytuwaat ñun suñu système éducatif. très bien alors beneen poñ bi ma bëgguñu ñu dugg ci mooy euh, euh, euh, l'immigration clandestine. Euh, c'est vrai que ni jamono yi ñu toll nii gis nañu ni xaw na daal tuuti xaw na rig parce que gis gis nañu depuis euh, euh, l'arrivée de Pedro Sánchez muy le chef du gouvernement espagnol en Mauritanie au Sénégal en Gambie gis nañu ni mbir mi nga xam ne moo jëm ci wàllu immigration yi xaw na daal dem bi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax mais est-ce que le problème de l'immigration dafa war a yam rek ci Euh, Espagne seen euh, chef de gouvernement ñëw fii jël ko par bu bëri jox leen ni leen lijjanti leen mbir moomu ak seen ay dëkk est-ce que du jëm ci lu ñuy dellu si waat li nga xam ne mooy la formation professionnelle déjà yow yaa ngi ci biir parce que yaa ngi formé ay xale yu bëri inséré nga une vingtaine de personnes wala plus ñoo xam ni danga leen forme dugal leen liggéey ñu ngi suturlu tey ji est-ce que yaakaaru ni la formation professionnelle parce que xale bi su amul métier je pense bien que ni mënul dem on a on tendance à dire que ni euh, jàng bi jàng bi jàng bi jàng bi c'est très important nga jàng am un niveau parce que jàng boobu moo lay mën a permetre nga nekk nga nekk quelqu'un boo xam daa def formation professionnelle mm-hmm. mais est-ce que tàggatu ci métier tey jotul parce que ci jamono jooju lu mu toll ci àdduna boobu lu mu toll wallaay ci métier sax moo waroon a jiitu sax parce que am na xale boo xamante ne mu ngi jàng waaye bopp bi dara dugg ci bu demee ba yegg benn niveau bi ñu génne ko ci léegi day traîner waat ci mbedd yaayam ak baayam xamul fu ñu koy dugal xam nga lu muy def ñu jox ko ay mbuus ne ko dem jaay ci marché bi ñu yen leen balbasik ne ko dem leen jaay te mu leer ne lii du continuer ne xale bi day màgg te bu màggee dafay am soxla te soxla yi muy am bu tegoowaat seen soxla yéen bu ngeen tëlee mhm. day metti si moom du donc tey état politique am lan la mooy jéem a yaatal liñ naan apprentissage des métiers xale yi nga xam ne jàngatuñu école de 14 ans ba yegg ba vingtaine d'années ñu jàngal parce que réew réew comme ni may waxee souvent réew capital humain moo koy doxal. wallaahi maanaam il faut que sa sa population. il faut que sa ay doom. Mhm. nga jox leen gëdd boo xam ne ak xam-xam boo xam ne. su ëllëgee daanu mën a doxal réew. bon euh, gis nga xam-xam. duñ ne dama jàng rek ndax mën nga jàng ba ne arte amuloo benn métier boo gee da ngay taxaw di xaar fu ñu lay dugal ci bureau booy liggéey wala dara bu yaa fekkoon ne tey jàng ba benn niveau bi nga boole kaak apprentissage yu métier même boo jégéenee si njàng mi sa métier boobu nga jàngoon fi nga doon jànge mën nga cee dimbali dimbali ci sa bop tout à fait mën nga ko exercer continuer moom mais tey li gën a metti mooy xale bi nga xamante ne jàngul dañ la naan mënuñu ko jël si benn certains euh, ateliers yi certains ateliers yi nga xam ne de l'État ñoo ñoo ko tijjil seen bopp mënuñu ko jël c'est parce que benn am na ay critères yu ci nekk boo jàngul mënuloo bind waaye man bi ma juddoo ba tey musuma dugg école aw ma droit ñu defal ma formation apprentissage am naa droit mba eh, ndax boo ma defalee plomberie du bind moo ko fay def plombier menuisier du bindaa ka fay téye tout à fait euh, kële nu mu tëddee frigoriste du bindaa ka fay téye mm-hmm. lii yëpp ay métiers yoo loo xamante ne bii ñun suñu bopp dañ koy soxla ça paye bala ñu koy wuti ji feneen tey jii métier yi ma la limal ñii yëpp da ngay jël ay étranger yi fi nekk di ko exercer nga jox leen ko xataa li ñu naan électricité bii tey sa doomi réew jàngaloo leen ko ba ñu mën cee xarañ yeneen doomi réew yi ñëw fii di immigré si ñoom nga koy jox kenn mënu lay wax ne bu leen jox parce que déjà ni ñu ñëwee di wut si ñun ñoon la ñuy génnee dem di wuti kon nañu faciliter ñëpp gis nga immigration bi dëgg la dal na waaye ñu ngi préparé xam nga lu dal lu nekk rek am na beneen système bu ñuy jël du ñàkk xëñ na yoon bi ñu waroon a mën a téye ñu ngi leen ciy lëkkaloog ñeneen ñu di leen si dénoncé ñenn ñi ñu ngi leen di fay ñu ànd ndànk-ndànk di dem par tuuti tuuti kenn du leen yëg lii yëpp day am xam nga li gënoon daal mooy apprentissage des métiers comme ñi fay nañ leen alal ju dul jeex multiplier leen seen i atelier former leen xale yi gratuitement mhm. gratuitement ngeen former leen si apprentissage yi comme menuisier bi menuisier aluminium menuisier euh, bois. mécanicien menuisier euh, kii nu mu tëti. mécanique mécanique. Mhm. noonu menuisier. Euh, bois beneen bi bois. métallique aluminium métallique. Mhm. ñett yii xale boo ko dugal ci boppam te yomb na day dugg. plâtre bi moo gën a gën a gën a ñàkk fayda. carrelage. plâtre moo gën a ñàkk fayda. Mhm. amul jàng bind amul jàng dara xale boo ci def ci boppam mun am une semaine deux semaines mu mën plâtre. doo ngeen ko jéem a faciliter xale yi carrelage jox leen ko xale yi mais léegi étranger yi ngeen koy jox bàyyi seen doomu xale réew mi nga xamante ne ndeysaan foo leen seen seen leen ci kaw mbaa mi ña ngay këppi mbalit ña ngay dem di këppeele la sa mbalit sa gaale jëlal sa dàll yóbbaale dem jaayaale mais mais mais mais madame la présidente est-ce que yaakaaruñu aussi tamit foofu tamit euh, même su fekkee ni euh, euh, gouvernement bi am na rôle bu mu ci war a jouer te rôle boobu rôle am moo ëpp téeméeri junne yoon Euh, kërulu askan wi mais est-ce que yaakaaroon aussi tamit que ñun on a une jeunesse ou une population boo xam ne aussi tamit que nu ambition parce que aussi tamit il faut nga am ambition sa bopp am loo bëgg sa bopp parce que euh, comme la wax xale yi nga xam ne ñoo nekk ci carrefour yi amee seen bouteille di jël di euh, fomp vitre oto yi mais mais mais mais mais mais est-ce que loolu tey pexe est loolu est loolu est loolu est pexe la wala est-ce pexe la wala ñàkk jom la wala aussi tamit que ñàkk am vision parce que xale bi dugaluñ ci boppam dara jàngul amul benn métier boo xamante ne mën nañu yaakaar ko mais umu wala dooy ndeyam bi nga xam ne moo ko téye mais umu xale yi xale yi ah. duñu teel a bëgg xaalis déedéet duñu duñu bëgg xaalis seen ndey yee leen di wut loo xaalis wala ah, seen baay yi voilà kon responsabilité ah, ci waajur yi waa léegi man bu ma xëyee benn juróomi téeméer laa am xaw ma ma jëndee ko ndékkee xaw ma ma xaar ma jëndee ko sombil leen ko pour añ xaw ma nu may def sama doom yi di jooyee samay wet dama leen bàyyi ci mbedd bi gis nga nañu xoolaat euh, population bi citoyen yi ci boppam ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp état nañu jox nopp. ibbil ñu seen i bët dimbal bi ñuy wax. man dama fekk ku fees dellu ma lay dimbali. mais d'accord mais état aussi. Euh, soxna Umu état mënul def lépp. dem mënul def lépp de il faut que il faut nga xam ne ñun askan wi ci min ñu am benn part de responsabilité pour mën a jàppale aussi. tamit que l'état en tant que société civile. am na si ñoo xam ne wallaay ñu ngi bay seen waar ñu ngi formé. ñi ngi jàngal métier xale yi ñi jàng ñu musul jàng école sax ñi ngi leen di former former leen ci coiffure former leen ci couture former leen ci même crocheterie bi man tout dernièrement formé naa ñaata xale ci crocheterie ci couture ci euh, kële nu mu tuddati broderie à main ñaw à main te tey ña nga di ci dimbale seen bopp lu mu bon bon ku leen commande ñu defal ko jaay ko junni wala ñaari junni dimbalew leen dimbale na leen ba te leen ma leeral yàlla na seeni waajur yàlla xam na ko bi amul lu ñu leen di téyee waaye yow man du ma fekk ki sonn ma war ko dimbali ma génnee ndimbal nekk na jëm ci ñu sonn ñu daal di koy dévier dem jox ñeneen ñi nga xamante ne waroo leen dimbali gis nga dimbal day dem ci fa mu war a dem directement ñi nga war a dimbale boo leen dimbalee ñu jàkkaarloog moom dinañ changer seen at dina changer seen vie changer seen vie bu doom waaye yow man bu fekkee damaa sonnoon aar la kas ma xool ki ma tane mi ngi nii nga ñëw daal di koy sottiwaat dolliwaat ka man mi gënoon a sonn ma gën a sonn amul benn njariñ nañ leen xoolaat ñun suñu société nan la ñuy doxalee ñun ñu ñuy teg alal ji suñu loxo pour ñu mën ci dimbali doom aadama yi nañ leen ci xool borom bi subhanahu wa taala nañ leen ci xool yàlla te xam ne bu ëllëgee da ngeen koy layoog seen borom subhanahu wa taala fa mu war a dem di yóbbu leen ko fa ki sonn di liggéey di daw di ñëw di ñëw te mu lekk ne amul dara demal nga dimbali ko suqali ka yow mi ci wetam bu ko nëbb ndax te la nga am akas néew bu ko amoon kon réew mi gën a yaatu. très bien ñu dugg ci beneen poñ boo xam ni dangeen ngeen ci jouer un rôle très très très très important yéen waa société civile bi. Mm-hmm. yow ci sa bopp yaa ngi ci di si bay sa waar sa mm-hmm. yeneen moroom ñoo ngi ci ñi ma xam ñoo xam ni société civile. ñoo ngi ci bay seen waar. muy euh, euh, li nga xam ni moom mooy euh, maanaam les divorces muy les mariages yoo xam ni mariage yu xale yi léegi contrat la daal. waaw dem yéeri. soo ñëwee mariage ba c' est pour trois mois c' est pour quatre mois c' est pour un an c' est pour deux ans maximum sëy ba tas na alors tey jii ñu gis ni tey jii waajur yi tamit yi nga xam ni moom ngeen doon mhm. moom laa doon man euh, am nañu benn part de responsabilité boo xam ne dañu ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko négligé mooy de waajur may maye sama doom mhm. sama doom dama ko yar ci benn luxe mhm. wala yar ko ci dem am am wala yar ko ci lenn su demee tamit ci loolu lay bëgg dund su demee teg jëkkëram loo xam ne munu ko su demee muñ ba du fa am te yéen seyeewu leen noonu euh, sunu yaay euh, euh, maa ngi jégalu dundu nunu woon noonu sunu maam yi dundoo woon noonu mais tey jii fu mu toll fi nii sëy yi divorce yi bare na bare bare bare boo xam ne la muy indi ci yàq-yàq jéggi na dayoo soxna waaw gis nga benn gaa si ñun la sax jigéen ñi parce que boo juree sa doom yar ko fi nga ko war a yar war nga ko yar ci ñetti chose jom fulla ak fayda gor gore muy juróom ndax lan fulla bi mooy lan tey gis naa koo xamante ne romb na buntu kër yëpp ñëw ba sama buntu kër tànn ma man man xool naa góor ñi fi ma sa jaar ñëpp gisuma ci kenn moom dong laa ci gis waaye naka laa amee ngor gu mën na ma toog sëy ak moom te yàlla tax moyen yàllaa koy joxe te bis bu ko génnee mu sotteeku boo ko yàkkamtee nag yaay perte ndax bu ëllëgee di nga ci génn nga demaat seet ko gën a yées nga daal di ciy duggaat du am benn njariñ waaye man nii sa kilifa te ma toog fi ma toog ba nga mën a judd yar la ci tey sa baay laa nekkaloon boo tooy ba ba nga màgg boo xoolee ci man di nga war a mën a toog nga muñ muñ bi nag du dóor du saaga mën nga muñ xiif ndax boo amul lu ma lay jox nga lekk li ma amakas neew ma ruy ci naan waxuma kenn dara mm-hmm. maa ngi ko suturoo mooy sutura bi ma lay wax ngor gi mooy lan lii nga am moom nga ma indil ma am ngor gu toll ne togg ko la mu mën a togg wala la mu mën a def ma def ko daaj ko ñu daal di koy bokk waa ñëw ñu dara la ma ca mën a def ak as néew ma def ka xam nga jigéen am na góor goo xamante amul woon dara tuuti la mu amoon jigéen a koy jàppale di ko jàppale ba tey mu doon milliardaire. Mhm. du donc man samay ndey fa mu jaar ak i tànkaam naa xool bët boobu. bul ma xool ñi nga xam ne ñoo ma tane. ndax du ñàkk ñu am nijaay bu am alal bu leen di dimbale wala ñu am tante bu am alal di leen dimbale mm-hmm. man na comme man sama famille ci nii la ñu toll modeste lañ naa xool li méngoog jamono ma dem ak noonu te bu ma ko muñee te yàlla tax yàlla waññeeku moo tax ma ne la yenn saa yi ñu ñi jigéen la ndax man ma yeb sama doom naa la yeb ci ñett yi ba juróom yi ma la tuddal mooy ne bul xiif ba kenn xam ko ci mbedd mar ba kenn xam ko ci mbedd bi bul am coono ba kenn xam ko ci mbedd bi boo demee ba mu leer la ne tar na ba tar ñëwal ba ci kër ga nga delloo ya jóge woon nga ñëw wax sa problème tuuti lañ la mën a dimbalee ñu dimbalee la ko ci kaw sutura ak teegi nga demaat toog xaar yàlla te xam ne yàllaay maye mhm. ku am yàlla yàllaay buur ku ñàkk yàlla yàllaay buur waaye déedéet xoola yaa ngi noonu di sëyi na nga xool doomu diw jooju la mu am jëkkëram di ko def est-ce que jëkkëram ak ko defal na nga ko xool fa mu teg tànkam nga teg ko fa waaye yow fa mu kooku di teg tànkam ndax la ko wër mën nañ seen situation amul benn problème man nag ci lii laa juddoo si laa yoroo ba toll nii maa ngi yaakaar dugg fereen ndax ma mën a changer sama àddina moo tax ma dugg ci sëy bi waaye duggeewu ma ci ndax alal duggeewu ma ci ndax lan contrat bu ma koy signé xale yi tey nag loo ci gis lu nekk lu mu bari samay njaboot ak njabootu keneen a si yam bi daal nañ ko signé. bu baaxee ñu daal di dem ak moom bu ameel yore boo ko mënut a yokk ñu daal di ko fay. mais violence bi nga xam ne tamit moom moo am ci sëy ñu xam ni léegi dañuy gis ni euh, cette euh, nouvelle génération je parle des hommes. Mm-hmm. que ni euh, benn orgueil bi nekk ci ñoom ñoom defoon na nañu sëy commandement la. agressivité la. am sa jabar. raayoo ko wutoo lu baax ci moom lijjantiwoo lenn lu baax ci moom mais la ngay wut ci moom moom mooy soo amee nervosité wala nga am lu la metti dóor. Mm-hmm. dóor moom loi bi dala ko tere dóor. loi bi dala ko tere ñun kay lenn rek moo ñu metti ndax la loi Karama bi nga xam ne ay atal ñi ñu ciy daw bu ñu dimbali ñu rek ngir yàlla ak yonent bi ñu woteel ñu ko appli ñu def application bi daf ñoo të ba léegi ndax dóor ak euh, violence verbal xas jigéen di ko saaga di ko gëdd gënuloo ko gënu la boobu moo gën metti sax dóor gënoo ko gënu ndax yow kii yaa koy agressé profondément ki nga gëdd tey xëy na bëggul woon nga gëdd ko ndax waa këram mosuñu kaa gëdd mu ngi koy muñ waaye déjà mu ngi koy rongé coono la ci moom te yii dañ ko interdit. te jigéen jigéen jigéen jigéen jigéen ñu bëri goitre goitre ndax ndax souffrance am na leneen loo xamante ne bii souffrance bi muy daj rek ci kër gi rek doy na dóor bu mu ca bokk saaga bu mu ci bokk xaste bu ci bokk gis nga gor goo xas mu fipp romb la mën na am du la sax waaye dalay bàyyi sa kër loo am dalay suur dem àddina ak àllaaxira dem yoonam mais dama yaakaar ne góor ñu bari xëñ na la ñuy jëfandikoo mooy tax wala nga xam ne seen éducation dafa motul parce que nee naa la doom toujours si base bi la muy góor bi muy jigéen bi mhm. sa doom boo ko juree base bi éduquer ko ci biir kër gi d'abord xamal ko lu baax li mu war a def xamal ko li nga xamante ne bu rombee ci mbedd bi noonu lay comporter woo ba bu ëllëgee bu indee doomu jàmbur yàlla xam na ko ak yonent bi bu musul door sëram du dóor doomu jàmbur mm-hmm. waaye bu fekkee ne yow say sër si biir kër gi yaa ngi rayanteeg ñoom di dóor di xas di kat di def yi kenn xamul keneen koo takk ëllëg mu nangu ko boo ko indee tamit da ngay foog ne ni ngay def say sër noon nga koy def donc ñun ñi jigéen ñi nañ leen wàññeeku ci suñu éducation doom yi xamal leen àddina xamal leen lu baax ak lu bon li ñu war a def ak lu ñu warta def dëkk bi daal li ma ci wut ba wut mooy ñun ñëpp nañ leen lëkkaloo du société civile rek te ñoom paar bi sax ñoo ci gën a ëppale waaye yàlla xam na ka am na ñu ciy bay seen waar dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. te maa leen di nuy ñoom ñëpp de passage de mhm. di leen encouragé ndax xam naa ne li liñ ciy dox bu fekkoon ne li ñuy lim ci société civile noon la yëpp mhm. kon tey yenn problème yi bëpp bëree bëri bëri wàññeeku na alors y a un autre aspect boo xam ne tey jii euh, tas na àdduna jaxase na àdduna Euh, am na ñoo xam ne sax dofloo na leen ndaxte euh, muy réseaux sociaux yi euh, réseaux sociaux yi moom fu mu toll fii nii moom nekk na nekk na mbir boo xam ni mbir mu doy waar la e soo xoolee aussi tamit que dund bi ci xale yi di dundee ak taxawaay bi ñu ciy taxaw nekk na loo xam ni dafa xaw a jéggi dayoo tu vois du n'importe quoi dans les réseaux sociaux mu nekk loo xam ne aussi tamit que lu muy blocage lu muy indi blocage si wàllu éducation ci doxalinu nit ci doomu aadama bi dafa bare li muy yàq sax a ëpp li muy defar ah et pourtant defarukaay la de absolument am na lu bare lu ci nekk ci loo xamante ne bii mën na la defaraa defaraa sa jamono ku jàngul ku nekk yàlla xam na ne boo duggee soo duggee ci réseaux sociaux yi ci fànn bu nekk nag internet bi boo ci duggee mën nga jàng ci fànn boo mënti nekk euh, alxuraan bi boo ci yeggul woon fu sore boo ci duggee di nga ci yegg foo xamante ne bii kii tare yaa ngi ci jaar ci daara ba taxaw bu taree nga tare dañ naan déedéet kon am na ay foor yu ci nekk loo xam ne lu baax la lu nit ñi war a mën a jariñoo waaye am na lu bon lu mën a yàq société bi mhm. te ba tey yàq na sax suñu société tout à fait te lii yëpp day delluwaat rek si mbiru éducation si waajur yi ci boppam ñoo fiir seen responsabilité parce que yow boo yoree sa téléphone sa doom wax nga yëkkati téléphone jox ko fa ngay dugg sa doom di fa dugg amaanaa fa ngay dugg sa doom waru faa mën a dugg au lieu nga limiter ko fa mu war a dugg wala nga xool âge bi mu toll nga xam ne yow mii kii warul mën a mat euh, yor téléphone nga war ko mën a jox téléphone du ma la ko jox gën a garaaw loolu yéen waajur yi da ngeen di jëndal seen doom ay téléphone yu yu ba pare ñu am seen néegu bopp c'est ça le problème contrôlé woo xale ba ndax mi ngi nelaw wala daa gis xale boo xam ni war a jàngi suba 8 heures nekk ci téléphone ba 4 heures du matin te da gis xale yoo xam ni ay 12 ans 11 euh, ans 13 ans ñoo ngay farantu xam nga Babacar mooy li ma la toujours rek day wàññeeku ci éducation famille bi rek day wàññeeku ci foofu parce que bu njëkk ba tante yaa ngi ci kër gi maam yaa ngi ci kër gi mag yaa ngi ci kër gi ñëpp a ngi ci kër gi yow boo amul bët pour xool man mii am naa bët bu may sànni xale yi pour mën leen a surveiller xam ci lan la ñuy yëngatu tey nee naa la man rek ak sama doom ak sama jëkkër sama biir kër man bu ma wàccee sama bopp laay tal parce que déjà maa ngi xool sama téléphone xool samay ay image ma am ak sama ay message laay lire moom xëy na la mu yendoo ci journée bi yëpp école ba mu la mu fa waroon a jàng jàng fa ay image la doon jàng ak yu kenn xamul déjà mu ngi koy détruire te yow xamuloo ci dara amoo ci moom benn contrôle mhm. nañ leen may xale yi waat ñun nañu wàññeeku waat may xale yi xel jéem leen a éduquer waa jàllale leen ci yoonu siraatal mustaqim et puis waxtaan te new la diggante waajur bi ak doom ji waxtaan amatul man bu ma wàccee war naa mën a xam sama doom bi ma bàyyi woon sama gannaaw lan la def sama gannaaw échange bi sax waxtaan bàyyi téléphone bi fële jël ko tegal téléphone bi nga ñëw ñu waxtaan yow ku góor ki nga xam ne mooy père de famille bi war a mën a gën a ambiance bi gën a neex si kër ga yaa bu ñëwee gën na dugg ci néegam jël téléphone am aj mhm. xale baa nga ci ruqam jël kaye yaa ngi mu teg de waaye téléphone ba lay jëfandikoo mhm. nday jagaa kenn waxatul waxam mhm. whatsapp bi rek di signé ñaka teg gis nga ñun ñun ñoo war a defarwaat suñu bopp ñun famille yi nañ leen defarwaat ñu xalaataat suñu àddina lan la lii outil la boo xamante ne lu baax a ngi ci mais lu bon a ngi ci lu bon loolu nañ ko éviter loo suñuy doom ndax bu ëllëgee mën nañ leen a perturber. te tubaab bi ko indi ko de utiliser wu ko noonu. mukk mhm. ñoom pour woote lañ koy wuy li ci biir la ñu bëgg a luqati ba mu ñëw. xale bi ci gën a tuuti bu la téyelee téléphone am na foo xam ne bu fay duggee ndeyam du fa dugg ah, pourtant yow doo contrôler sa doom ah. sa doom da nga ko war a contrôler ndax yaa yilif doom du la yilif ndax bu la yilifee bu subaa dina la jooyloo waaye yow nga jooyloo ko tey moo gën junni yoon bu subaa nga jooy sama yaay ja moo ko daan wax yal na ko yàlla yërëm doom jooyloo ko ndax bu ëllëgee mu bañ la jooyloo mhm. bu ma la yaree ci yoon bi nga xamante ne moom laa soxla li mu nekk ci man ma def ko ci yow boo génnee bu ëllëgee xëj na samay tànk ngay jaar mhm. boo dee jeeng yi tuuti bu ma ko séenee dinaa la wëlbatiwaat wanaat la àddina waaye bu fekkee communication amul dara amul seetlu amul yow daal sama seetlu yow waaye li nga sol di jàngi soliwaatal yére bu baax wala yow déedéet li nga sol moom sa morom yaa ngi defal mu ngi daan demal nga maquillé wu nga ne dem et surtout pousser sa doom mu nekk ci beneen situation boo xam ne yow mii ndeyam nekkoo ci woon da ngay rus des fois nga jënn ci mbedd bi gis xale yu taw ndaw 17 ans 16 ans col yi am col yoo xam ni wax ni kii est que bu muy jënn waajur mi ngi ci wetam gis nga ka moo ko naan demal say moroom a koy sol demal nga sol ko xale la wala ñoo koy jënd sax tay ka sa xale ma yow xale la de dafa toll si àddina yow ba nga ca tolloo sa ndey bàyyiwu la woon nii man je me rappelle très bien buñ daan xëy di jàng ji malfa bi buñ ko solee même bu ñu jiitalee tubéy suñu yaay dafa ne dindil sol simil ba mu set defal rob ci suufam mhm. yàlla xam na ko mhm. bu ñu woddoo sër bu ñu solee tubéy bu gudd mu dindil saf leen kilot ci mhm. suuf ngeen waddu seen ngeen dem waaye léegi éducation boobu yëpp ñu ñu jël ko sànni ci xaj bàyyi suñuy doom topp leen ci li leen neex ñenn ñi da ngay wax ak ñoom ñu ne doomu léegi de kanaara la ñëw ñoom ñooy jiitu nga topp seen gannaaw foofu la bone bi am loolu amul fenn foofu la àddina bi tasee loolu amul fenn nañ leen wàññeeku ñun nga xam ne ñooy waajur yi alors bu ñu wàññeekoo mhm. mën a éduquer waat suñuy doom jaara leen ci yoon bu baax bi très bien alors euh, bi presque jeex na tàkk mais dama bëggoon mhm. euh, bàyyi la su fekkee ne mhm. am na benn euh, question boo xam ne tey jii waroon naal ko laajtal xëy na laaju ma la ko nga të tëñax rek ci benn minute comme ça ñu joxante rendez-vous question bi mooy question sànq laajoon nga ma duggoon nga ci laaj bi waaye danga ko mëj delloowaat mm-hmm. mooy xale bi nga xamante ne bii tey yaayam amul mu nekk ci benn situation bi amul ku ko dimbale dem na léegi di tàllal loxo bi mm-hmm. bu tàllalee loxo indi yaay ji du ko ne fan nga ko jëlee xale boobu day yàqu parce que déjà la mu indi dafay foog ne lu baax la fekk ne lu ban la ba mu ko jëlee doo ko xam ki ci ruq bi ci biir koñ bi mhm. di wëlbati sa doom mhm. te mënuloo xam xalaatu sa doom lan la mhm. lii yëpp yàqu xale la li may wàññeeku waat ba ci wàññeeku mooy nañ leen duggaat surtout état maa ngi ko koy ñaanaat question boobu tamit posé wu loo ma ko te dama bëggoon eta teg ci kanamam def si ay jéego ba bu ëllëgee suñu réew mi fuñ ko fu ñu tuddee réew tuddaale ko ca kanamam mooy lan autonomisation bi nga xamante ne les jeunes filles ñu ngi leen koy ñaan boobu ba léegi ñu dimbale jeunes filles yi ñu mën a jàng yeggale seen jàng ñu mënul woon a jàng ñu wutal leen apprentissage boo xamante ne bii amuñu luñ koy fayee mhm. ñoom daañ ko mën a jël en charge dimbale leen si wala ñu dimbale la société civile ñu gën a mëne mhm. seeni la ñuy def parce que bu ñu mënee seeni activité normal moom état defe naa la muy def dootul bëreet ndax bu demee wuti ji dina indi te bu ko indee pour lan la faw état waroon a yegg yeggu fa moom fa la koy def mhm. très merci soxna Oumou wallaay maa ngi lay remercier kontaante <laughs> maa ngi lay remercier bu baax bu baax euh, Babacar Naam mhm, mhm. di nuyu de passage sama tante bi fi des yàlla nag fi yàlla bàyyi wëral ay cëram muy Mariam Gueye Mhm. ngay ñor dundal te loo dund du doy di sama cousine yëpp sama doomu baay sama doomu ndey ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu képp koo xam ne am di jàmm la xarit nga doomu ndey nga mbokk nga maa ngi lay nuyu de passage te di la wax ne lii ma fi wax bu yàqoo ci jëmm ji la te bu baaxee ci borom bi subhaanahu wa taala jërëjëf waaye lépp nag defar rek moo ma ci dugal alhamdulilah di sant bu baax nag télévision nationale mm. moom mi nga xamante ne moom nga lëkkaloo yow Babacar mm-hmm. naam jaarale ko ci yow ba ñu mën fee toog tey ñu ñu déglu ci àddina wër këpp merci beaucoup euh, ma fàttali tey jii sama invité moo doon euh, soxna Oumou Khayri euh, di présidente bi nga xam ni moo jitee association pour la promotion de la femme et de l'enfant mu ñëwoon ak ñun tey jii ci poñ yu bëre bëre bëre yoo xam ne actualité la d'ailleurs moom moo doon tey jii sunu Euh, euh, maanaam euh, waxtaan di société civile bi le rôle de la société civile sur les questions de l'heure tey ji defe naa ni ku seetaan émission bi xam ni poñ yëpp dugg nañ ca te mu doon loo xam dana jëriñ askan wi di gërëm bu baax l'équipe technique ingeste ta moo fa nekkoon régie Sinia script Siham moo àndoon ak ñun son le duo Mohamed Val Atnan le choc laa leen di wax ni caméra Ahmed Tal coordinateur Tahman programmation Euh, the réalisation le grand Mouhamed Tra lañ jox daje incha allah samedi prochain ci beneen émission ci beneen kàngam ci biir réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.